CSDC Géejawaay dogu ñëpp partenaires yi nga xamante ne lim na leen fii ñoo jàpp ci affaire bi ñu ngi leen luy nuyu ñoom ñëpp. di jiital nuyu bi nag ci monsieur Sy président bi ñu jël nuyoo bi di ko teg ci loxo mu jàll leen ñu ko ñëpp. di wax ne aussi ñu ngi am kontante bu rëy a rëy bi nga xamante ne dafa am début mais amul feeñ sànq wax na ko ci biir ay waxam. nekkul tey mooy première fois donc ñëwoon nañ fi te gisoon nañ ñuy ñëwee tey aussi ñu ñëwaat mu gën a am doole kon dañ leen di ñaanal gudd fan ak wér lépp li nga xamante ne bëgg nañ ko yàlla suñu borom defal leen ko. parce que ñoom kat ba ñu xamee affaire association bi yàggut mais ba ma leen ko waxee à travers Marie Diallo dañ ne loolu dafay nekk seen souci nekk seen problème. ba léegi ci la ñuy daw lu ñu am ak lu keneen ak keneen am yëpp ñuy boole bàyyi seen temps seen lépp di daw pour tey xale yëpp am ba kii euh, satisfaction kon ñoom amuñu seen fay dañ leen di ñaanal yàlla suñu borom mu yër lépp mu fayal leen. parce que tey ni ñu koy waxee rek programme bi depuis 2005 la jooy nañ ko fu nekk fu nekk jooy nañ ko mais xëy na tey ni fii la ko yàlla jaarale donc ñoom ñoo xam ne ñoo xam ne répondre nañ vraiment suñu appel comme ni nga xamante ne xale yi soxla nañ ko parce que xale yi dañoo nekk couche très vulnérable bu ñuy wax couche très vulnérable jàpp naa ne duñu romb ñii war waruñu romb ñi parce que ay ay muumin lañu ay enfants yi nga xamante ne dañoo am ay problème au niveau de leur cerveau mu affecté seen membre mu téye seen loxo seen i tànk ñi boole si di accompagner ay crise épilepsie yu sévère ñuy wax yaay dama xiif dama mar dama bëgg a dem toilette sonn naa tourné ma kon ñooñu dañ leen war a jàppale kon tey ji dama bëgg ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fii ñuy jàpp ñi ñi gën a remercier ñi képp ku ci julleeti waxtu yi juróom na leen ñaanal parce que ñoom tëddatuñu defatuñu dara xale yi mooy seen problème te tey jii nag yéen yaay yi xale yi tax na kenn utatul dara jaay ji kenn mënatul dem bu sori ndax gis nañ ne xale yi dañ leen war a assister te seen prise en charge mu metti lool ngeen koy jooy fu ne mais ñi leen ñi wuyu dañoo dañoo néew tey ñoom ñoo fi ñëwoon daaw ñëwaat fi tey kon damaa bëgg ngeen tàccu leen bu baax a baax ba ñëpp xam na yéen da ngeen a kontaan tey ndax seen i seen i rongoñ dafa am tey ñu ko feral yor ay musuwaar di ko fomp kon ñooñu dañ koy wax haut et di leen ñaanal bu baax lépp li nga xamante ne mën nañ ko yàlla suñu borom yokk ko ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na leen yàlla defal jàmm ku leen xaar si si lu si lu ñaaw yal na xaar di yal na la yàlla yëkkati leen ci darajay Seydina maa ngi koy waxee sama xol laa ko tëbbee parce que xale yi dama ne au moins ñun ñu ngi yor suñuy beek di dem même bu dee lu tuuti maa ngi koy sant ñoom ñu dund lu metti kon dañ leen a war a jàppale jege leen di di waxee chaque fois rek gën leen a gëm seen i handicapé doom ngeen jàpp mu dëgër tey jii boo leen jàppoon fukk tey war na gën a yokk ndax ñii tey dañoo bàyyi seen lépp muy feet bàyyi seeni kër seeni doom seeni njaboot ñëw ne ñu dem fenn lépp lu ñu am dañ koy dajale ñëw jox leen ko kon yal na leen yàlla suñu borom yokk yàlla may leen wér ak gudd fan li may wax ci barki salaatul faate laa ko ay wax sama xol laa ko tëbbee yal na yàlla seral seen xol ndaxte man ñii ñooy sama problème ku jàppale xale yi rek damay kontaan yal na yàlla dafa leen jàmm yàlla may leen wér a gudd fan ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo kontaan donc ñu ngi yemale fii wax ji xam naa lu mel nay tontondur ak ñeneen dinañ jël kàddu merci beaucoup jërë ngeen jëf merci